Euh, ñu dem ci li nga xam ne nag moom mooy agent euh, judiciaire de l'État bi ñu doon wax Assane Dembu euh, daal appel bi mu defoon mën nañ ko woowee ab appel maanaam ni mu opposé li nga xam ni moom mooy juge bi ñëwoon ci mbir Ousmane Sonko ba ni daal nañ ko dellowaat ci liste bi loolu yi mu def suba la ci cour d'appel war a àddu ñu bari na ñu ngi naan suba nag la ñuy xam ndax cour d'appel dafay ñëw daal di dëggal appelu état judiciaire de l'État bi wala ndax day dëggal juge ba li mu wax. waaw mën ay ay àttekat lañ. te gis nañ ni ñi daan àtte fii dañoo jàpp ni dañoo féete genn wet hmm. ka àtte fee ñu jàpp ni moom it féete na genn wet te li àtte fii fu ëpp fuuf liñ jàpp ni genn wet la féete fee ñu jàpp ni benn léegi moo féete genn wet hmm. kon man jàpp naa ne bu ñu àttee fii dinañ dëggalal kële la nga xamante ni loolu la àtte ndax ñoom àtteekatu neen lañ kon xaj na duñu. dinañ dëggalaat kan kële. waaw saaba si fay waaw. ndax ay àttekat yi neen lañ xaj na ñoom seen biir duñ fi nekk di def si yenn kii quoi kenn àtte ñu ne ko yow li nga àtte baaxut man maay àttewaat li nga àtte affaire yooyu mën naa ñàkk seen diggante waaye comme la ñu hélas waxoon fan yee te ma gis sax ñu bëri di si dikkaat xam nga keroog bi nga nee ko dossier Mame Mbaye Niang bi yëngalaat nañ ko yooyu mm-hmm. dañ leen dossier Mame Mbaye Niang bu ngeen gisee ñu yëngal ko la ñu yóbbu fële sa Ziguinchor war ko fa amuñu sa yaakaar waaw ñàkk gañ sa ñàkk yaakaar moo tax ñu yëngal dossier Mame Mbaye Niang bi xamal leen ni leen lee bu ngeen ci amee ndam lu Mame mbayñaa ngi nii di leen xaar toog waaw moo taxoon ñu yëngalaat dossier Mame Mbaye bi ah. mm-hmm. loolu la la leeraloon keroog mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag loolu nag ñu bari jàpp nañ ni ak ba si information yi ñu jot yëpp dañ ni lii moom mën ngeen ci am ndam mën nañ leen a nangul lépp mais Mame mbay yi moom diggante nit ak nit la lu nekk si penc mi kenn mun si tus te àtte nañ ko ba pare. mais bu mambay bi des na Assane. Hmm, waaw moom laa wax dama ne moom lañ bëgg a jaxandu ji. àtte bi daanoogul quoi. waaw si lañ bëgg a jaxandu lañ la wax. d'accord. Hmm. alaaji kon de xëy na suba la cour d'appel daal ñuy xam ndax mbir yi la xewoon ca Ziguinchor lu juge bàyyi wéy wala ndax li agent bi sàkku itamit dañ koy jox càkkutéefam maanaam daal ñu neenal ko commencé waat mbir yi. waaw xam nga boo lay wan ne euh, di mbiri Sonko moom. nii lay demee rek chaque jour obstacle day am bu ñuy teg hmm. mais obstacle bu ñu teg day feeñaat ci penc bi hmm. waaw day sonalaat politiciens yi ñoom ñëpp da leen di sonalaat ci penc bi maanaam du nekk rek mbirum Sonko hmm. mais maanaam mbirum ñëpp lay doon parce que Sonko mbiram boo ko dindee rek dafa nekk ni problème mu Sonko mooy problème mu Sénégal fi mu toll nii. Hmm. jamono ji loolu moom mooy li sunu borom def Sonko boo ko dugalee ci jafe-jafe. Hmm. yow ci sa bopp da am jafe-jafe réew ci boppam day nekk ci jafe-jafe. buy génn ci jafe nga gis ni nit ñi seen problème a ngi wàññeeku réew maa ngi wàññeeku ay problème ay jafe hmm. loolu mooy li nga xamante ni mooy li sunu borom def maanaam dafa mel ni lépp da koo jël rek dëxëñ ko. ci jenn jëmm joo xamante ni bi dafa mel ni mooy direction réew mi. boo nee nii gauche ñëppay gauche. ñun ñëpp mhm. même ku nekk ci biir oto bi moom. Mhm. bëgg mu dem. Mhm. mi ngi ci biir oto bi. léegi nag direction bi nag moom dafa mel ni moom jamono juñ toll nii mooy Sonko. waaw léegi nag ku jàpp ni. lii ñuy wañaar ni di ko jëmale kii yow. yow concerné wu la. kon dafa fekk nga wàcc oto ba waaye ki nekk ci biir oto bi moom. Euh, leer na ko ni. jafe-jafe yi yëpp di ñëw ci jafe maanaam jafe-jafeem la même bu ko gisut mooy wane ni kon moom warta sax jéem a nekk ko xam ne day laaj réew mi te dinaa ci ñëw ci kanam boo ñëwee ci am na point boo xam ne boo ci ñëwee dinaa la ko linkeel mm-hmm. léegi nag mm-hmm. lii nga xamante ni bi moom la ñu xam nga mm-hmm. atte nañ waaw mu leer ñu ne juge bi joxe na verdict ñu wut fu ñu jafandu mu wóor la ni cib lënd lañ jàppandiku xam nañ ni lënd gi moom mun leen a am na ñoo démb sax ni juge bi daa jaawale dossier yi waaw kan ma wax la maanaam dafa réer ci dossier ko ci dëgg ba yeneen dossier la maanaam daal indi nañ ay réer ni juge bi dafa jaawale àtte yi waaw xam nga yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ni bii rek mooy dañu bëgg a wane sax ni juge bi sérieux wut ak këram këram xam nga moo tax coupure courant boobu fa lañ bëgg a jaare pour dugalal la ko maanaam dafa réer ci dossier bi mooy coupure courant bi nga xamante ni moom lañ waxoon ne am na mu réer jaawale dossiers yi. mais xam nga li juge bi doon àtte moom wax dëgg fa yàlla réerul ci dossier yi. Mm-hmm. mais yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne bii rek yu ñuy jafandu ci lënd lañ jafandu pour bëgg a yéeg ci kaw taax bi. Mm-hmm. waaye loolu euh, gëw ma ni dina yomb waaye bu ñu fa jógee tamit dañuy kerewaat leneen rek. Mm-hmm. maanaam a chaque fois. da nga amul yaakaar cour d'appel diggante diggante no ah euh, parce que jàpp naa ni. bu fekkente ni la ñu doon àtte rek lañuy ñuy àtte muy yoon rek la ñuy wax. Hmm. gëm naa ni moom saa yu yoon génnee lii moom Sonko dana ci am ndam. gëm naa ni saa yoo xamante ni bi wax nañ ca li nga xamante ni mooy yoon. parce que hmm. jànguñu yoon waaye ñi ko jàng maandu. Hmm. parce que tamit booy déglu da ngay déglu déglu ma sax ñoo xam ne ñu féete lañ. tey am na koo xam ne bu ma lay déglu nga mu leer ma ne ma Pastef nga féeteel euh, du ma déglu ci yow ci say wax yoon di ci argumenté wu di wax mais su ma di leeree ne yow mii kat. li ngay wax ni te dong moom moo tax nga di ko wax loo kiil texte yu leer ñooñu dama leen di préférer déglu parce que lu tax ñooñu jayuñu kenn dañuy wax li nga xam ne mooy li sart yi wax ñooñu ñoom laay bëgg di déglu nga xamante ne bi bu ma dégloo nag am ci sama gis-gis léegi bu fekkente ne bi loolu rek mooy la ñuy wax moo tax ba ñuy dem ca Casamance ñu bari daa am li nga xamante ni bi mooy yàqin ni euh, ndam mën na fa am waaw ndam mën na fa am c'est parce que jàpp nañ ni bu dee yoon rek la ñuy wax ñii dañoo jël loo xamante ni bi du seen ëpp cër génne koo xam ne ñoom nekku ni ñoo ko war a génne ñoom ñoo ko war a bañ a jox euh, fichier li ñu kii loolu lépp moom moo indi mbir mi mbir yi yëpp ñuy wax mais mbir yi ñuy def nii yëpp xamuñ ni ñu ngi créé laal ko Sonko mi ngi ci mi ngi ci campagne bu mag fi mu toll nii. d'accord parce que ay mbiram moo fës moo nekk ci kii bi tout temps ci la ñuy wax. Mhm. les autres dafa mel ni kenn yëgut seen mbir. waaw dëgg la voilà. <laughs>